alaikum. la presse nationale et internationale ku que fort ne nous, lay nuyu di la jaajëfal comme ni le ko le Sénégal mi ngi traversé ay moments de trouble moments de trouble ce n'est pas la peine d'utiliser aussi parce que ku nekk yaa ngi vivre ca fa nga ne ku nekk yaa xam mais d'abord di mastaw ñi nga xam nyom tey jii nii ñoom ñoo nekk ci prison yi ñu arrêté leen keroog ci bi manifestation yi amé ak ñi nga xam ngi continuer di leen arrêté ba barki démb ku melne El Mali, ku melne le docteur ñan ku melne ne ñeneen ak ñeneen comme le maire Bilal de keur Massar nga xam ni ku nekk xam ni ñoo leen di yoon ñi sénégalais mais comme ni koy le président Macky Sall moo dugal Sénégal ci cycle bu infernal dugal Sénégal ci cycle nous nga nous sur bi suñu indépendance bataille, cycle bobu Sénégal moo rapport bi mu établir avec son opposition mo fi am et pour moi. mo waral yi nga xamni mo am ni mais parce que fàttali dafa bax que quelles que soient ses intentions quels que soient ses moyens de répression nous continuerons à lui faire face parce qu'il ne s'agit pas justement de lui, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de notre démocratie, il s'agit des libertés président pour am jitu rassurer et c'est important tous les militants des partis les sympathisants des partis de Yahoui Askanoui, d'y rassurer l'opinion sur la détermination des leaders vous savez ce qu'il faut surtout éviter, et je le dis avec force, xam ngeen ko mooy leader yi mu bañ a dégg leader yi mu bañ dégg tous les jours tous les candidat mu xool Mais tous les jours ni ne rapprocher élection muy xool yan pexe lay def ba du mais le président Macky Sall gis ngeen interview bu mu def barki demb express ku doon laam ni dafa bëgg doon candidat à la présidentielle je pense que loolu <clears throat> leer na ci bop yi ki nga xamni ni dafa ni ni wi ni non ci benn bir te ku ni wii ci mbir moomu mu promouvoir la ku ni non ci mbir moomu mu sanctionner la kon xam ngeen limu wax donc est-ce que da ngeen di taxaw di xaar mu naan leen bàcc laa tudd bàcc laa ngeen ni noo dañuy déglu ba mu ni waxna ni il veut être candidat il ne le sera pas et tous les leaders de Yewi Askan lui seront des candidats ceux qui le souhaitent et ceux qui l'a écarté seront aussi des candidats mais kooku est-ce que le président Macky Sall war nañu ëpp fulla gu tey ne moom mu ni jëm ñun ñu war taxaw ni que daa fa yegg yoon baa gi c'est l'affaire de tout le monde c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de chaque citoyen c'est l'affaire de chaque citoyenne nous ramener c'est un combat pour les libertés et pour la démocratie Nous devons nous bouger ci l'eau, nous ci mais croyez-nous on va y aller avec beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques, mais on va parvenir à nos fins Mon on annonce ici le président Macky Sall ne ko dégg que le on va faire une marche marche bi nga xam ni dina tàmbalee rond-point université ba rond Médina di ci woo tous les sénégalais fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ñëw ànd ak ñun ci marche boobu kii toog di Abbas Fall. dugal une demande d'autorisation depuis lors le 30 il y a eu Askan a commencé à travailler à travers ses bases du 46 départements du Sénégal pour que partout nous am également des le 30 les coordinations départementales nous à à nous déposer demande de lettre d'information le 3 avril ce Askan Wi également dina organiser des marches sur l'étendue du territoire national il à ce Askan Wi également dina organiser des marches sur l'étendue du territoire national lolou pour Kamal, le président Macky Sall que fout détermination miam, ci dina nasaxal suñu démocratie fala suñu détermination tàmbale ni que daanu taxawu suñu démocratie fu pexeem yam pour nasaxal suñuy liberté ñu wanka ni fala suñuy pexe tàmbali pour taxawu suñu ay liberté